bon tey dama bëgg ñëw def benn zapping samay abone dañ may bind lu bëri di moo waxal ci mbir mii waxal ci mbir mi tey li bëgg wax mooy dama seetlu ne démb ak tey Ngaaka Blindé mooy liñ ma gën a laaj titi papam ndeysaan ku ne papam dafa génn di wax ne moom dafa bëgg gis doomam lu ëpp xëy na fanweeri at wa gisul doomam dama am sama ay mbokk immigré yu nekk Espagne samay abonné immigré yu ma bind di ma wax si sa Cheikh waxal suñu carte d'identité yi di tax mënuñu si jot nañ commencé ci Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé li tax ma sama wax ci moom mooy dafa génn benn son son bi léegi mu am cent ci benn fan rek mi ngi trending mi ngi def buzz Ngaaka ñu wane ko arène nationale mu def clip bu doy waar clip Baye Fall dafa nekk trending te ñëpp xam ne ñoom fi mu nekk nii Wally Seck mooy numéro un Taxi Love mooy presque sept cent mille vues ci trois jours si ñetti fan rek waxoon naa leen ne Taxi Love bu fi génnee ça va battre tous les records man dama amoon feeling te vraiment Wally Seck rusloowu ma nek numéro 1. numéro 2 kan Admorf, fi nekk. mooy Atmov Atmov mo fi yow la Tipo waaw mu def buzz plus près de 3 millions de vues mais nag li dal Mabo moko xaw a dal mom dafa dugg ci affaire théâtre yi ndax ñëpp xam ci maîtresse ci la te way bi wayu bande annonce la. kon xeyna lolu tax lolu dina ko aider mu gëna am vue mais gis nga ne mom mom kessé mu ñom numéro 3 kan mo gis ñu gis ndeysaan mu génn benn way bu neex chanson Marie et Cher way bu neex biit bu neex a fait moom moo la defar biit ndax bu ñu ba gis am émission bu bees jël indicatif indicatif dib du gis indi chance bi ñu am ay vidéo yi rafet la ñuy ba pare am beat maker bu baax ñu gis vraiment man lii moo tax may def vidéo dama bëgg trending ñu gis ci musique vidéo yu bëri gis nañ ci Carlo di une benn way police Mabo ba légui mi fa asta asta way are Je mooy bu taw yaram mi ci ak kan xamna Je ne gis nit Queen Bis ba mi ngi fa african lover carlo Ne xam dafa mëna way baat bu neex la am mais vraiment carlo di heure bi waro na romb fi chaque jour ndax voix bi am style bi mais way bi mais reprise xam nga dafa bëri rythme man loolu moo ci xaw jaaxal dem ci biir mbalax bi mais chanson chanson internationale mais on vraiment carrière am la musique li Queen dal musique bi dafa mel divertissement la def heure bi na mel Freddy dem dem ñu bon retour ne show

deuxième chose bi mu bëgg wax mooy affaire immigré loolu tuuti rek laa ci wax. immigré yu nekk Espagne bëgg ñëpp si waaye amuñu carte d'identité ñu ci bëri dañ ne bu ñu amul seen carte d'identité du ñu mën a am passeport du ñu mën a am këyit foofu Espagne. kon ñu ñuy wax mooy consulat bi vraiment li ñuy wax ngeen dimbali booy ñu am seen i carte d'identité vraiment ndax euh, élection yi sax dégg naa ñu ci bëri mu mënuñu woon wote mais ñi leen gën a soxal mooy ne ñoom dañoo bëgg ñibbi si wala ñu bëgg. am passeport pour am ay kayit foofu Sénégal yi nekk Allemagne tamit ñu leen di refouler vraiment am na lu jot a gis gouvernement bi ñu ngi ñaan ñu ngi leen di ñaan ñu dimbali booy parce que kat gis nañ fi ay nit yu génn seen live di wax ne gouvernement bi moo joxe benn liste ñu génn Sénégal yi man loolu gëmuma gëmuma ne Macky Sall ne def loolu dina jël ay Sénégal yi leen boole pour ñu dàq leen ndax Sénégal yi ñëpp xam nañ ni immigré yi lu mat 1000 milliards la ñuy dugal ci Sénégal

ba muy def grand théâtre boobu ñu dem këram yaay mu wax lu rafet ci moom mais kenn gisuloon papam waxuñu ko nag pour dugg ci vie privée mais dañu bëgg wax rek ne paa bi paa bu yiw lañ dural photographe la woon daan photo photo Senghor moom nee na yàgg na am bay bu fekkee ne nag famille bi ko bañ a gis moom garaawul mais en tout cas moom devoir am def na ko te li mu def nii rafet wax na dëgg ndax kii kat bu ko neexoon mu génn lu yàgg ndax si ci yàgg na def buzz am xaalis di di toj àdduna kenn déggul paa bi wax dara kon tey bu demee ba génn war nañ xam ne xaalis taxul mu génn fa génn pour gis doomam te titi moom nee na titi ci boppam génnoon na ci télé bi di wax dafa bëgg gis papaam kon paa bi li mu def ñu ngi biir privé di wax kii moo tooñ kii moo tooñ wala li am parce que dafay am ci diggante yàlla mooy mooy dogal nañ ne titi dina ci wax ndax bu ci waxul affaire bi dafay gën a law li tax ñu ciy wax nag c'est parce Nous sommes fi nekkal suñu émigré yi nga parce que dañ may ba Chine comme ni mu la ko waxee ñii di Bolivie ñii di Argentine man maay seen télé nee nañ man maa leen di jox xibaar ne papa dafa foor waaw man mii di wax ak chance suñu papa yi nekk suñu yaay nekk ñu yóbbu ay màkk di di jox ba États-Unis chaque mois 300 000 mille laa laa doon yónnee sama sama famille kon xëy Titi amul chance dimbali papam mais lii chance la pour mu jubóog papaam toppatoo ko bu ko deful wax ji day gën a bëri góor gu tey la nag tey bi ma doon wax ci Titi barki démb rek génn naa benn vidéo dafa Titi dafa tey ba ko Aliou euh, Magnol doon interviewé tey boobu laa gis ci paa bi waaw paa bi nag moom mooy papa Titi kon nag war nañ ko mën a gëm ñun daal li wax daal ñu ngi rafetlu ñu ngi ñaan yàlla bis ci ndox mu set mu retrouver parent dans l'intimité comme ça coow du am